alxayaau kersa laa yaati du dikkee illaa bi xayrin ndare yiw xadis ji muttafaqun aley dëppoon nañ ci daa ko fekk ci buxaari fekk ko ci muslim wa fi riwaayatin li muslim am na riwaaya bu ñëw ci saxiix muslim bu ne alxayaau xayrun kulluhu aw qaala alxayaau kulluhu xayr alxayaawu kersa xayrun yiw la kulluhu léppam wala dafa ne alxayaawu kersa kulluhu léppam xayrun yiw la yal na ñu yàlla boole may kersa ba duñ ko mën a moy may ñu kersa ba nekk ca lam bëgg ñu nekk may ñu kersa ci digganteeg mbindeefam yi it ba duñ leen ñaawa du ñaawal jëmee ci ñoom waaye suñ lépp fay rafet jëm ci ñoom te yàlla rek tax hada wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi xaqa amin asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi dégg sunu kàddu lii xew mu jot muy xew-xewu lislaam moom lañ leen di fàttalil muy annuel dîner fundraising bu mag boobu nga xam ne mu ngay xewee ci Staten Island ci taxawaayu ICFA buñ ko waxee nag suñ xel yëpp def ci imam Muntaqa saako borom xam-xam bu mag bi nga xam ne tey mooy jàngal ndaw ñi di jàngal mag ji ki miin Makka ak Medinatul Munawwara nee naa la mun Muntaqa saako mooy éviter mbokki jullit yëpp ci Staten Island ci jumaa ju mag jooju nga xam ni mooy masjid al muhajirin wal ansar nee naa la mu nga nekk ca 740 Delafield Avenue Thiès saatanaay leen nee naa la masjid bu mag boobu imam Mountakha Sakho ku ne xam ko ci lislaam moo tax béréb ba dem nañ ba bëgg nag building bu bees tàq boo xam ne nii bu ñu moom la ngir lislaam bi mbokk yi diine boobu ñuy wootee muy diine fundraising nee naa la ñëwal joxe sa alal waaye ñu servi nag nga lekk mën a déglu sa diine waaye jël la nga am def ko ci yoon yàlla imam Mountakha Sakho bis ba si na kañ lay doon yemook samedi décembre 20 2023 ah mbokk yi nag heure ba day teel a tàmbali ban heure lay doon cinq heures bëgg na ñëpp teew ca béréb ba ndax su ko defee la ñu fay dajale ñu mën koo dajale daal di mën a teel a delluwaat nag ndax ku ne xam na ne certain ay leen lay xewee kon mbokk yi lu ci waay am te bug ko cee def te sori jëlal numéro zel bi ma lay jox 347 265 7703 loolu mooy numéro zel bi 347 265 7703 mbokk yi nee naa la bëgg nañ building boo xam ne nii tey képp koo xam ne nii tey ñëw nga wala nga bëgg a jàng sa lislaam da mën a ñëw ci béréb boobu moo tax ñuy woote fundraising boobu kon mbokk yi jël leen ngeen gaaw ñëw def seen alal ci yoonu yàlla Imam Mountakha Sakho woote na ci taxawaayu ndimbalu ICFA kon nag mbokk yi bu ko kenn tardé bis baa noonu woo nañ leen ci te yaakaar naa képp kuy këru diine te nekk ci cinquante états yi rawatina ci biir Amérique rawatina New York City ñu ngi woo ñëpp nag rawatina consulat ak association bépp organisation bu nekk ci dëkk bi bul tardé bis boobu le 23 décembre fii ci Staten Island